voilà maa ngi tudd docteur Aram Top Sène nekk directeur général bu ministre directeur général action sociale ci ministère de la santé et de l'action sociale tey jii li ñuy dajeloo fii mooy dañu am plan d'action bu nga xam ne parce que yooyu yëpp ci engagement Sénégal la bokk parce que Sénégal dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu ratifier con ratifier convention internationale sur les droits des personnes handicapées bi ñu ko ratifier tamit Sénégal ni mu ko mën a jëmmalee comme ni ko yeneen dëkk yi ratifier mooy euh, mu am benn loi d'orientation sociale. loi d'orientation sociale boobu nag bi ñu ko voté en 2010 dañu ko jëmmalee ay textes ak ay mécanismes. Euh, ñàkkul ngeen dégg ci la carte d'égalité des chances euh, ak ay yeneen texte yu nga xam ne texte bu ci nekk rek am na ministère bu nga xam ne nekk na ci gouvernement bi am euh, am compétence pour gérer lépp lu nga xam ne question handicap la wala question vulnérabilité donc texte yooyu daf leen di daf leen di adressé wu pour que ñoom fi nga xam ne ci lañ nekk muy emploi pour que ñi nga xam ne personne handicapée lañ par exemple ñu mën a jot seen emploi au même titre que personnes yi nga xam ne amuñu handicap ñi xam ne par exemple ministère de l'économie sociale et solidaire ñu mën a euh, les personnes handicapées accéder au financement pour mën a également am des activités génératrices de revenus ou bien mën a am seen ay propres entreprises yu leen di permettre ñu taxaw ci développement socio-économique Sénégal d'une manière générale daal loi bi li ko tax a jóg mooy promotion ak protection vraiment ñi nga xam ne mooy personne handicapée. direction générale de l'action sociale ñun la état chargé pour que ñu mettre en œuvre loi boobu nga xam ne mooy la loi d'orientation sociale ñun nag duñ dañ ciy dem ak ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire muy partenaire euh, technique yi ak financier yi mais nekk partenaire ministériel yi parce que partenaire technique mi financier yi non seulement dañuy jàppale ci xel xel xel euh, ci xel bi ci waxtaan bi mais dañuy jëmmal euh, li nga xam ne war nañ ko def ci seen wàllu appui financement notamment muy Say Savers nga xam ne même atelier bi nga xam ne biñ ko sumbee dugal na ci loxoom muy daw ak muy euh, yeneen partenaires yi nga xam ne yëpp toujours daal lu ñu soxla bu ñu leen ko ñu leen ko jébbale wax leen ne lii mooy suñu soxla ñoom ñu taxaw si di euh, ànd ak également ci li ñuy def tamit mooy fédération nationale des personnes handicapées nga xam ne euh, le président Yatma Fall moom moo ko dirigé te wax naa sax que ne léegi fierte nationale la mais léegi dugg na sax fierté mun naa wax ne fierté africaine la et fierté internationale la parce que nit la ku nga xam ne vraiment li muy def daf ko daf ko jox gëdd ba tax tey jii ñu jox ko benn raaye bu nga xam ne moom moo ko tabb mu nekk au euh, niveau ouest africaine tey jii nii bëgg ko ba suba mooy vraiment plan d'action national bi nga xam ne yooyu dafa topp ci li nga xam ne ay matuwaay la yi nga xam ne mooy permettre bu ñuy évaluer Sénégal ñu xam ne Sénégal fii la toll ci doxalin ci wàllu handicap plan d'action bii ci la bokk donc plan d'action bi moom mooy permettre képp ku nga xam ne euh, Sénégal nga nekk euh, di liggéey ci handicap muy ONG muy organisme muy gouvernement ñun ñu fexe ba li nga xam ne yow defoon nga ko ci handicap ñu fexe ba daal di ko recenser ci plan d'action bi njëkkoon a def muy plan d'action bi nga xam ne c'était de 2017 à 2021 ñu am fa ay résultats résultats yooyu ñu boole leen yépp tënk ko ci benn document bu nga xam ne document de capitalisation la ñu boole ko jox ñépp ñi nga xam ne war nañ ci jot boobu comme document bi passé na te ba léegi li nga xam ne xeex la ci wàllu handicap ba tey ñu ngi ci moo tax ñuy bëgg a tëggaat document bu bees bu nga xam ne day dem 2022 ba 2026 loolu daf ñuy permettre également ñu recentrer lépp lu nga xam ne xayma la ci wàllu handicap muy ñun ñu koy def muy ONG yi muy partenaire euh, ministériels yi muy ñëpp koo xam ne da nga am rek wàll ci euh, xeex wala jàppale handicapé yi ñu jël euh, sa sa orientation wala say stratégie wala d'une manière générale programme bi nga xam ne war nga ko mën a eh, eh, def ci entre 2022 ba 2026 mu ñëw mu lëkkaloo ak ñun li nga xam ne ñun loolu la ñuy def pour que ñu traduire ko ci benn document document boobu nag suñ ko amee dina nekk document boo nga xam ne document de pilotage la pilotage boo ko déggee mooy maanaam ñun dañuy toog di xool dañuy def mais également dañuy xool képp ku nga xam ne yaa ngi intervenir ci wàllu handicap ñu xool li ngay xa li ngay def ñu daal di ko suivre bu ñu paree ñu capitaliser ko comme document bu ma la waxoon lu nga xam ne lii mën nañu wax ne Sénégal def na ko ci li nga xam ne moom mooy xeex euh, ñàkk ñàkk euh, promotion bi wala jàppale également promotion personne handicapées yi ci biir Sénégal et li ma wax nii mooy juste bu ñu paree dañuy continuer pour yeggali document boobu pour mën a également partager ko avec l'ensemble de partenaires mais également jébbal jébbal ko euh, ki nga xam ne moom mooy le ministre de la santé action sociale muy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye pour mu jox ko moom tamit chef de l'État